bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu mbokk jullit yi mbokk taalibe ci ndigalu sunu sëriñ Cheikh Lamine Bara Diouf nitu yàlla ki ci gudd bu mag bi nga xam ni moom lañuy waajal muy gudd leetul xadar nekk samedi biñ jëm nekk la 8 mai ñu koy waajal fii ci Sambe sant yàlla muy bésu ngëneel di bésub alxuraan ñu nekkoon fii ci daara ji daara daaray xikma bi nga xam ne Cheikh Papa Demba juuf moo ko jiite fii ci Sambé sant yàlla mu nekk daara ja nga xam ni daara ju yàgg la ci biir ëtt bi daara ju am barke daara ju ay ndongo yu bari jaar ba tey ñu nekk ci àdduna bi côté bu ne te fa taxawal islaam looloo taxoon ñu bëggoon xam ni ginnaaw bés bi bésu alxuraan la bala ñoo tàmbale ci yëgle bi ñu ubbee ci kàddu ay alxuraan leen ci ndongo yi nga xam ni nag seex Pape Demba Diouf moo leen yor fi ci daara ji ñu jóge ci gox yu sori ñëw fi ci daara ji taatan alxuraan fii bu Medina Yorofu la ñu bëggoon a jox Moustapha Sow mi nga xam ne moo bayeekoo ko Medina Yorofu la mu taral ñu yéen ci alquran suñ paree ñu door a jublu ci waxtaan bi auzu billahi minash shaytanir rajim إذا رأتهم سمعوا لها تعيوسا وصفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك الصبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وأدعوا صبورا كثيرا صدق الله العظيم mbokk yi alhamdulilah kon dégg ngeen kàddu yooyu lenn ci ndongo yooyu nga xam ni ñoo doon tare alxuraan te mu nekk ki jógee fii ba Medina Yoro Fula waajuram indi woon fi woon pour mu sàkku xam-xam eh, gis ngeen ayat alxuraan yooyu mu tari waaye ah, dañuy jëlaat ci beneen ndongo ku ñuy wax sëñ Baara Thiaw a ah, moom itam mu tari ñu yenn ci alxuraan moom itam bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen indi fii pour ñu sàkku xam-xam.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 الساعون يسألون أيان يوم الدين يوم هم عن النار يوفتون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weeru koor gi di leen ci baalu àq eh, gannaaw loolu ñu ngi yëkkati sunuy kàddu ci sunu ndigalu sëriñ Cheikh Lamine Bara Diouf nitu yàlla ki fii ci Sambé sant yàlla ci guddi bu mag bii nga xam ni moom la sëriñ bi di dundal at bu ne bu yëgsee ñu bëgg leen koo fàttaliwaat muy guddi laylatul xadar fii ci Sambé sant yàlla muy samedi biñ jëm nekk la 8 mai guddi ngeneel la nag moo tax ñu ubbee ko alxuraan ndax ci la alxuraan wàcc moo tax ñu ko ubbee ko ko bés bi ñu ci woo ñëpp bëgg ñëpp julee fi tàkkusaan bés bi nag ni nekk bésu alxuraan bala ñoo julli tàkkusaan fas yéene nañoo wàccee teere ju sell ji ci biir jumaa ji ba pare door a julee tàkkusaan buñ julee tàkkusaan ba pare nag dina ñëw ci tànt bi sëriñ bi dina génn fet ñu foofu waxtaan ak jaamu yàlla yi delloo leen ci yàlla jot leen kàddu bi yàlla buñ demee ba eeru ndog it buñ dogee ba pare ba def suñuy la ba pare dina delluwaat ci jumaa ji fanaan foofu di def xiyaamu layli jàng alxuraan jégglu sunu boroom julli ci yonent bi ba fajar ñu jàngaat kaamil alxuraan sëriñ bi ñëw ñaanal mbooloo mi ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla nañ dajeek moom te buñ dajeek moom bokkook ak jaamu yàlla yépp kon loolu la ñuy wootee daal képp kuy wax ashadu an laa ilaha wa ashadu an muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci guddi googu ci woo kilifa réew mi yëpp ak kilifa diine kilifa aada yi kon loolu lañ bëggoon a yëkkati sunuy kàddu rek xam naa dañuy jël kàddu bi jox ko Cheikh Mohamed muy doomu sëñ bi su ko defee mu yegale li des ci waxtaan bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulullah mbokk yu jullit yi mbokk nitu yàlla yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkale ci weer wi mbokk yi ñu ngi fii ci Sàmbe sant yàlla ci keppaaru nitu yàlla ki Serigne Bara Diouf bu ngeen ñu gisee ñu toog fii ci jamono yi da leen di fàttali bés boo xamante ne sëriñ bi faral na di ko def te buñ tolloo ci jamono yi muy bésu leelatul xadr ñu di ko jàpp le 8 mai incha allah kon mbokk yi bés bi ni ko Cheikh Bass waxee bésu alxuraan la bés bi bésu jaamu yàlla la sëriñ bi mu ngi ko yëgal ñëpp mu ngi ci woo ñëpp comme ni mu koy defee rek at bu ne ñu ñëw bokk ànd ak moom dutal bés bi ñu ngi ciy woo taalibe yi ñu ngi ciy woo an eh, soppe yi ñu ngi ciy woo mbokk yi waaye ñu ngi ciy woo jullit ñëpp képp koo xam ne daal yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah da nga xam ne boo déggee sunu kàddu yi nga xam ne loolu mooy sa woote ndax bésu leeratul xadr bës la boo xamante ne yàlla sunu borom wax na ne ngëneel yi ci jullit bii am bu ko dundalee man moo ëpp ngëneelu junneeg weer moo tax ci ndimbalu sëriñ bi mu tënkuñu ñu ne bu weeru koor gi teroo ñuy gën a yokk suñu jaamu yàlla waaye bu ñëwee ba ci fan yu mujj it ñu am bés buñ ci barkeeloo ci ngëneel eh, di ci dagaan di ci nattale ngir tombe ci bésu leelatul xadar kon mbokk yi bésu bësu jaamu yàlla bésul alquran la ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ànd ak sëriñ bi dundal ko bës bi comme ni ñu koy defee saa su ne in uridu illa islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah